dem xoolal li ma def xale yi maa leen gën a wëyu mais ma koy toog tey tey pay la kay bu ah, ma ko non pay la Mame Ndiaye koy toog Mame Ndiaye def fi dara lu baax ay traiteur la laal man Mame Ndiaye toogul la laal dama leen di yàq Mame Ndiaye mënu toog dama bëgg dañu bàyyi ma waay yow Mame Ndiaye toogul ay traiteur la dama leen di yàq dama bëgg aji Mame Ndiaye toogul ay traiteur la jël te man nag tubaarikàlla man kay dëgg démb li gën a neex ma ma maquillage oo trois heures du matin ki ma maquillage ni ma maas xamal ma bëgg da ngay wéeru ba xëy melal ni estati vivant ndeysaan may xoole ndeysaan di mel ni mor laa du naan ci guddi gi ndeysaan nii laa téye maquillage ay waay bis bis bu ko kenn cof nag mais togg tey man lan laa togg lu c'est bon temps bi fi mu toll nit ñi di neer c'est tàngaay bi nan te nga nag nan di te laa zéro diwlin def ma ni naat def crudité def ay gambas ay langus yoo xamante ne danoo jekk ba seen taat di wokkatoo nii xale yi maa leen ëpp expérience bu ëllëgee bu leen yi dalati bu nekkatee ci tàngaay xam leen hygiène de hygiène to hygiène de togg waaw xam loo leen di togg été été maa leen gën a wëli yëpp moo bés yaaw mooy loolu maam Ndiaye togg payla payla mel ni kinkaay yëri mami ko bara jël tamaate ji tamaate ji di xir ñi ni nit ñi tike law be nga ne def caw ju nit ñi namuñu yàpp tabax na jóge benn jigéen pendoo na leen gën a vulgaire laaj na lu tax jaji yas bi mu def ci jamonoy nawet pendoo laaj ci diw ñor waaye nag man dama commandé sama beneen coupe bu ndaw su ma gisul lu ma xam ba ñu woote ñu ne aji maas pee ma génne sama beneen coupe bi ni leen nii laa leen naroon def même bu ñu woowee keneen pee damay pee coupe bi ni man tamit coupe bi ma du ma ko téye ñu laa ci jël pee man maa téye coupe ma génnal école ñooñu ñuy toog man sama waañ ay xale rek indi ma ay géwël yu togg xew. yow gis nga ah. sama waaj ñi fi nekk. mais ñan ñoo fi ut ay géwël yu togg ah, xew. ay xale xoolal rek yow. waaw gis na dafa leer baax. mais mais kan moo fi indi ay géwél yu doog xew. ah dama lay la maa ngi nii. ah dégg naa am na ñun ay traiteur man traiteur kon moom la ñuy gis muy togg di def lépp. mais moo ngi ne toog elen sama jaaxoo la ñoo ngi nii. mais la togg day. waaw mbaxal fay laa laa togg ñu ne ma xale yi mbaxal bi la ñuy laaj. fay laa. waaw xale yi ne ma mbaxal mbaxalu mbaari bi. mbaxal yi eh. eh, eh, nga toog tey. maa njëkk a pere. maa suuf daay daay la laa. mbaxal faj tooy naa. mais bi mooy mbaxal mbaari ah. waaw mbaxal mbaari baa ngi jënd xar entier sànni ci samay laxas. mais li lii. tey tey tey ku tooyoon ma faj. daay nee waa 2 bi ngeen di tukku si tukku si des sànce yi poussière yeeg yëpp maa koy dindi. soj yi nga xam ni da ngay sëqat sax sa base bi di diis muy waw koŋ tey ku ko lekk day ñor. mais lii mais lii garaaw na de. tàngaay bi boo ko lekkee ñàkk bi génn. waa ñàkk bi lépp siif wax ci bi gisoo kii yor fiil bi li mu gàddu ci ay fiil yanu ko. waaw ñoom ñëpp mbaxal ne la ñu. mbaxal mbaari bi. maa ngi njëkk a pere. dama respecté heure fajar laa fi ñoom. très bien waaw jeex mais mais Tické naa am na ñu ay traiteur dégg naa am na ñu sax ay géwël yu leen toggal mais Tické yow loo loo togg tey. man coow bi laa togg man Tické loolu dama ñaari personne dèjà bi nga ñëw ci mbar bi ko waaw wutuma traiteur maa ngi sama traiteur bopp man ku ma fekk sama kër tubaab yi lekk lu baax lekk lu set waaye. asag naa ku bëgg lu ku bëgg a lekk lu baax ci yow. ku bëgg a lekk lu baax tubaab fekk maa sag naa gis nga boo juddoo ci tàgg boo naaw da ngay jàkkal say nit man kër gi ma juddoo ba ma juddoo ba tey à l'âge de six ans laa commencé di togg di sóor sept kilos man dama am traiteur du ma dicté ku ma togg ba nga fi ñëwee ba tey soo ba tey ma ne la maa ko tiim. mais mais mais xool ma xool nañu. kenn encombré ma Thiaw Diouf laay togg. laa ilaaha illallaah. kenn encombré ma la Thiaw Diouf laay togg. cob kenn encombré wu ma wutuma mu ah, yaa ngi fi moo ni kon Adji Mass réer na moo ni Mame Ndiaye ay traiteur la wut Adji Mass réer na man ki ma yar ay doomam laa àndal ah ndax dañu ne booy togg ci dëkk baa ngay dem ci dëkk da ngay dem ña nga bokkal néeg bu doon ay góor lañ tey dañu naan da ngay demal ña nga bokkal ñoŋ xam nga ñoŋ mooy ñi nga bokkal lël tey ñii ma indi ñoom laa bokkal néeg seen yaaya ma yar di maam Ndiaye mu mag mooy maam Ndiaye mu ndaw ñu dëkkantalee ma ko moo ma moo ma yat ci commerce doomu mi kenn commerce bi man la jar def ci man ci commerce man naat ci commerce xam ci commerce lu ma la wax ci commerce tëqal téere commerce da ngay yuuxu ah, da ngay yuuxu ba réew mi taxaw génn ajamaas naan ajamaas naan Mame Ndiaye raawat ay traiteur traiteur Mame Ndiaye lu ko joxi traiteur nag te Mame Ndiaye di traiteur boppam ah. ba muy tuut la toog bu tubaarkaal di yaraan bàjjenam yar ko tubaarkaal la fii ci Pikine bu njëkk ga waaw fa tubaarkaal la mu doon togg ci mën a di yekk ci góor yi tubaarkaal di jox nit ñi ca kër déggal ah traiteur nag tubaarkalla boo ko xoolee da nga koy xam dañ koy xam kii ba muy doon ba muy doon boobu traiteur xewul tey la traiteur xew ku ne gàddu asetam gàddu cinam su ndaw gaasam dërese ba muy doon traiteur tubaarkalla boobu yi bëriwul ah nanu baal ci traiteur nag